c'est mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak leeru jamono Alfayda FM euh, kàddu gi ngeen koy déggee ci immeuble Imam Assane Cissé euh, fii ci Medina bàyyi dal leen ak jàmm ma jukkil leen li gën a fës euh, ci boppu xibaar yi wàllum élection baatu Basirou Diomaye Faye ana lan mooy taarixam ak itamit nag laata muy jël réew mi taarix ga nga xamante ne bii moom la amoon daañu ci ànd ak Ndeye Fatou Cissé askan wi ak seen xalaat. wutee loolu ci lu jëm ba léegi rek ci élection yi nga xamante ne ni weesu na ana nan nañu ko gisee ak lan nañu gisee taxawaayu yenn euh, ci kandidaa yi Alioune Badara Diop dinañu ko indil ay leeral euh, dund bu nar wecceeku bàyyeekoo ci kaddu Bassirou Diomaye Faye ñi nga xam ne nag ñoo di woy jëfandikoo yi ñu ngi koy xaar di négandiku yi tamit nag ndax kaddu yooyu lee dina leen amal njëriñ lool euh, daañu ca teewlu Cheikh Tidiane Diagne wér gi yaram ak koor gi ñi nga xam ne ñooy woyaale jàngorop jabet kat ana nan ñuy def euh, ba mun a jàppale seenu bopp ba seenu ba dund gën a mun a wëy euh, ci biir koor gi te duñu am benn jafe-jafe daañu ci ànd ak njàppalu nuwaa bi yaay euh, bu ñu noppee danañ ca toftal xibaaru biti réew ak soxna ngoone njaay tàggat yaram ak Serigne Moussa Kane li ci yéenekaay yi nañ ko nar ak ndar képpale mbokk yile ñoo fi nar a ruusee ci ay xibaar ngeen taaxir lu tuuti ma dugg ak yéen ci faram fàccee bi gannaaw bàkk bi lay doon. ak Mariama Ba Euh, bàkk ba jib na ba noppi Alfayda FM juróom-ñeent fukk yu toftal benn njàppalu koddu sekk keneme la ñuy séen ca machine bi euh, tey naka di àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars atum ñaari ju ñaar fukk ak ñeent na ma ko junjee woon ca boppu xibaar ba noonu lay duggee euh, ci yaatal week faram fàcce bi ana nan nañu war a téye réew mi Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne moo nekk juróomeelu njiitum réewu Sénégal ana lan mooy taarixam laata naka soobu ci langu politique bay dégg kàddu président ak i tamit nag ba mu ko déggee taarix yi nga xamante ne bii euh, moo jukkee ca Bassirou Diomaye Faye daañu ca ànd ak Ndeye Fatou Cissé. dal ak yoonal ak jub jubal ak jubanti. ñuy xaarandi investiture ci bopp réewum Sénégal Bassirou Diomaye Faye ñeent fukki at ak ñeent njaga ñaaw la juddoo ca département bu Mbour région bu Thiès inspecteur des finances publiques di la mu doon liggéey laata ak palam ci bopp réewum Sénégal administration di fa mu amee lijaasa lu ko jiitu ba mu amee lii di baccalauréat moom mi nga xam ne tey mu wuutu ci toogu bi président Macky Sall ma nga doon wéyal am jàngam ca fac droit bu université Cheikh Anta bu Dakar foofee la amee maîtrise en droit numéro 2 bu parti fa ndax moo nekkoon secrétaire général ba Bassirou Diomaye fay fukki weer ak benn yi nga xam ne moo weesu nag ma nga woon ca kaso ba tey nag mbir yi soppeeku lool ci moom ndax du rekk environnement bu changé leneen moo toftalu ci ab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 mayante cër jëm ci objectif boobu mooy objectifu relance politique publique yi ak économie. Sonko mooy Jomaay Jomaay muy Sonko di stratégie bi waral tey euh, li tukkee ci élection yu 24 mars bi ñu génn lu ca soppeeku nag euh, amaana senegal dana ko yëkk moo xam ci yan anam lay doon euh, waaye ak lum si mën di doon senegal moom mi ngi taxaw temm di xaar ay réalisation ndax dafa war a yàkkamti lool bay gaawtu gaaw a mbaa di teel gërëm ay laaj la. dal ak yoonal ak jub ak jubal ak jubanti. waaye tamit ak jox cër gu mat askanu Sénégal yépp euh, wàññi dund gi soxlaal askan wi lool rawatina nag ci waxtu bi nga xam ne mu ngi tombé koor ak kareem bi ñi nga xamante ne nii nag ñoo fayte euh, ci kuréel bi saytu wàllu li nga xamante ne bii ñooy jëfandikoo euh, dund gi fii nii ci biir réewum Sénégal nag ñoom gannaaw nag kàddu président Bassirou Diomaye Faye di wax ne ne dina wàññi dund gi fii nii ci biir réewum Sénégal ñoom nag mu soxal leen lool tey itam nag ñu toog di ko xaar lan moo nar tukkee jëmale eh, ca li nga xam ne moo di wàññi dund boobule asko seen àddunañ ca mbir moomule ñu ànd ci ak Cheikh Tidiane Diagne kuréel gi takkee way jëfandikoo yi nag di rafetlu kàdduy président élu di Bassirou Diomaye Faye mu ñeel wala ko wàññite ci dund gu cher gi nga xamante ne jamono ji moom la askan wi di dund fii ci mim réew bu ñu sukkandekoo ci ay kàdduy El Hadji Abdou Badio mooy président régional bu ASCOSEN kuréel way jëfandikoo yi ñu ngi koy rafetlu parce que dund bi moom ku ciy wax rek yaakaar naa ñu ngi dimbali surtout kuy wax ne da koy loolu moo wax dëgg yàlla soxla si jamono gi parce que dafa ñëw ci waxtu boo xam ne wax dëgg yàlla surtout weeru koor bu nekk yaakaar naan bu mu koy wax sax ci weeru koor la ko waxee mooy ci chrétien yaakaar comme moom moo wax ne da koy def incha allah rabbi xam naa ne ci am jàmm moom mi nga xam ne gouvernement bu bees bi ak moom président bu bees bi ñoom dinañ ci am jàmm parce que actuellement sénégalais sonn nañ dañoo soxla président boo xam ne wax dëgg yàlla mooy ñëw pour wàññi dund bi. ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wooyee ay volontaires de consommation lim bi nga xamante ne groupe Macky Sall jël na ko fi dafa néew lool lu nu mel di ay kàddu yi waa Ascosen di sàkku ci nguur gi fi fas yéene ñëw mu dal koy yokku. mooy xale yi nga xam ne ñoo war a comme ça bitik yi yooyu noonu projet la mais nag dañoo gis ni lu ñu ci jël ba léegi dafa doy parce que wax dëgg yàlla nañ waxante dëgg pour nga sentir leen sax gis leen ci dëkk bi sax parce xamoo leen sax dëgg fa yàlla ñun ñu wax ne nañ leen ko jëlee loolu jël boobu dafa des xëy na peut-être volonté bi nga xam ne gouvernement bi ne moom la defoon mais dafa des xëy na peut kii bu ñu ñëwee bu toog ak ñun bu ko defee rek jàmm ak fi a jëlee ak a doxalee a li nga xam ne moom la bëgg pour ñu respecter prix muy grossiste muy demi grossiste muy détaillant mais bi ñu consommateur pour que ñu xam ni dund bi wàññeeku na ou bien fii la njëg yi toll yaakaar naa loolu bu ci jaaree rek mën na ci am solution bu baax. njëgu ceeb bi waa seen na ñu ngi koy xaar ci juróom fukki dërëm ci kopparu CFA wala lu mu yokk-yokk bu mu ëpp juróom benn fukki dërëm njëgu diwlin bi téeméeru dërëm njëgu soble si tamit ñu sàkku mu wàññeeku lool noonu la ñu ko waxee ci suukar si meew mi ak courant bi. Euh, bay li ngay dundee dundee li ngay bay moo soxal askan wi te itam nag soxla nañ ko lool ñi nga xam ne nag ñoo di baykat yi li ñu manqué rek mooy bërëb denceekaay euh, bu ñu bayee ba noppi li nga xamante ne bii moo ca tukkee fan nañ koy denc ndax bu ñu ko tegee naaj bi mun na koo yàq pukus yañ koy denc itam nag mun na faa nëbee di jafe-jafe boo xamante ne moom nañuy dund donte nag mu ngi soog a toog ñu ngi koy déglu di di xaar lan mooy tukkee ci ay kàddoom euh, ci wàññi dund bi ak naka la nar a jàppalee baykat yi euh, di kàddu Abdou baajo mi président bu asko ASCOSEN euh, ci micro Cheikh Tidiane Diagne. waaw fu ñu dund bi fu ñu war a jaar mooy que ne premièrement d' abord balaa ngay wàññi d' abord bay dundee maanaam fii li nekk ci Sénégal Sénégal am na suuf am na lépp nañ commencé li nga xam ne moo nekk fii suñ suuf bi d' abord def fi dara li ngi jégaane bitim réew nañu fexe ba loolu ñu matal ko d' abord parce que am na suuf boo xam ne mën na bay ceeb mën na bay leneen ak leneen ay dugub ak ay mboq yooyu yëpp mën nañ ko bàyyi fii nañ fexe li nga xam ne dañuy bàyyi fii ay pomme de terre ak ay soble nañ fexe ba yooyu noonu ñu mën koo bàyyi fii quantité boo xam ne pour mu doy mais itam bàyyi ko itam baax na trop mais fi ñu koy dénk itam maanaam magasin bi nga xam ne boo bàyyee sa mbay mi parce que dañu gis suñu mbokk yi nga xam ne ñoo bay soble ak pomme de terre ak yoon dañuy bay mais après ko ministre bu fi nekk nee naa ko da nga a jël région ne def ay magasin boo xam ne li nga xam ne moom la ñuy bàyyi ci produit nga xam ne dafay yàqu bu ko defee bu magasin boobu taxawee loolu du yàqu ñu mën ko fa exporter mais bu yàqoo rek loolu médicament la kon na bay dundee lépp la war a commencer d'abord balaa ngay ne da ngay wàññi d'abord yaakaar naa loolu mooy priorité d'abord waaw xam nga nit ku ne rek ak lu ngay gouverner nañ xaar comme mu ngi doog a yegsi nii mu ngi waaj a toog bu toogee xam naa dina dajeeg ñun association de consommateurs yi dinañ dajeeg boutique yi dinañ dajeeg commerçant yi ak grossistes ak parti yi nga xam ne ñoo bokk ci ñëpp ñuy yëngatu ci wàllu boobu dana dajeeg parti yëpp bu ko defee mën ci jël ay mesures te liñ koy ñaan rek mooy France collaboration boo xam ne ŋànk li nga xam ne mooy commerce bi waxtaan yooyu noonu yaakaar naa lu bëri mën na ci jóge parce que parti yooyu yëpp koo ci waxtaanaan rek yaakaar naa solution war na ci am ñu jaaree foofu rek solution mën na ci am ba pare nag am relation internationale loolu tam def ci baax parce que tam dañ koy jéggaani fi nga koy jéggaani tam am fa relation loolu yëpp mais fallait que gouvernement bi tax wax ne wax dëgg yàlla ak président bu bees bi li tax mu bëgg a bu ñëwee si ñun bu waxtaan ak ñun ci loola yaakaar naa loolu moom lu mu ci bëgg incha allah ñun dinañ ko ci gunge ci loola xalaatu askan wi gannaaw ba ñu déggee kàddu bu njëkk bu président Bassirou Diomaye Faye mi génnee ndam nag ci premier tour élection présidentielle yi ci biir réew mi ñëpp nag nangul ko ko moom mooy juróomeelu président bu réewum Sénégal askan wi nag wax nañ seenub xalaat ak seenub gis-gis eh, ca génnam bu njëkk ak kàddoom yu njëkk ak taxawaayam eh, ñu teewlu ko ci micro Alioune Badara Diop. di wax ne def na génnam bu njëkk bu mu jagleloon journaliste yi waaye doon jàkkaarloog réew mi ay eh, ci génn googu mu ngi nuyu di sant di gërëm sénégalais yépp ci génn gi ñu génnandoo voté waaye ñu voté ngir coppite waaye mu ngi dig sénégalais yi ne dina yori réew mi ci yorin goo xamante ne ni yorin gu am yërmande la waaye nee na dina xeex ak bépp xeetu ger ñu remarqué ci itam engagement bi nga xamante ne moom la li wér ba wóor mooy gis nañ mu indiwaat ay kaddu yoo xamante dina dalal suñu xel ci programme bi nga xamante ne moom la ko sénégalais yi fale wala boog projet bi nga xam ne moom la ko sénégalais yi fale ndax dégg naa ko mu ne chantième bu njëkk moo di delloosiwaat ak jubo ak ànd akub dal ci biir réew mi waaye la ma ci gën a neex bokk na ci opposition muy kuje gi nga xamante ne woo na leen ci ñu ànd teg lépp ci suuf doonaat benn liggéey réew mi waaye itam cër bi mu wax ne moom dana leen ko jox. yi moom ñun kontaan nañ ci moom pour l'instant lu mu ñu wan nii moom dalagum na xel quoi ndax booy ñoo ko fal essentiel lu si def moom maam na mootali rek fàttaliku ñu tamit ñun ñun yi sonn nañ si moom trop discours bi jàngaar naa si loo xam ne Diomaye lu mu si wax xam naa ne Sénégal moom instant moom kontaan nañ lu ñu bëggoon am nañ ko lii lañ bëggoon dèjà Diomaye comme yàlla def na ne daal mooy président ne ko ñëpp nangul li ko yàlla def te ñu may ko tamit batma may ko temps boo xamante ni dina mën a liggéey réew mi quoi parce que Sénégal du réew moo xamante ni réew mu yomb defar waaye am na loo xamante mën koo defar lu si des yëpp nag su paree nag mu fexe nag jaayante ak la mu waxoon askan bi fi ñu toll nii li fi Macky Sall la bàyyi lay jaayante bu loolu weesoo nag mandat yi ñëwaat incha allah rek mu fexe nag jaayante li nga xamante ne loolu la diglante waaw dis a ma xam ñu rafetlu ko rek li wax de am na solo wax dëgg yàlla fii la ñu doon nee naa woo na ñëpp amul ku mu bàyyi wax ah loolu la bu ñëwee jubal ñu liggéey ndoo waaye ko nañ ko muñal tuuti rek buñ ko muñalee tuuti xam nga euh, xëyum ndaw ñi amal solo askan wi bu baax a baax mu bokk nag yenn euh, ci projet yu président basiru Diomaye fay euh, donte sax ndawu Kaolack yi amatuñ goon yaakaar ci am xëy ndax nag yenn ci ay projet yoo xamante ne tegoon nañ ko seen loxo te mujj gi daal gisuñ ci dara mu mel ni nag jamono ji yaakaar dafa dellu si waat ca ndaw yooyu boobule euh, dañu ca déglu Cheikh Tidiane Sène euh, mi président conseil communal jeunesse bu Kaolack ci micro Cheikh Tidiane Diagne. bu ñu liiree projet Jomaay bi sur euh, l'emploi des jeunes ñu gis ne mu wax si lu am solo gis ne financement yi fum mu dañ jógee dafay bëri dafa bëri woon ay projet ay programme ay service de financement yi nga xam ne dafa bëri woon si jeunes yi ñoom nee nañ suñ toogee benn guichet rek lañ fay def pour financement ndaw ñi loolu doon lu am solo parce que ay effort defoon na mais effort yooyu la plupart visible wulul woon ndax politique bu ñu si dugaloon soo jëlee lu mel ni xëyi ndaw ñi jël lu mel ni service euh, civique national mu doon si pàcc bu am solo boo xam ne dañuy créer ay volontaires nga jël lu mel ni animateurs socio éducatifs yi Kaolack dund si lu doy waar mu doon loo xam ne souhaité wuñ ko woon mooy lan gis nañ ni bu ñuy inauguré maison de la jeunesse bu Kaolack bi parce que bu Kaolack lañ njëkk a inauguré politiciens yi dañoo amoon ay quotas di dugal ay ndaw si xëyu ndaw ñi lañ te yaakaar naa warul woon demee noonu ñu gis aussi ay chef de service yi nga xam ne mën nañ wax ne nekkul à la hauteur par politique lañ leen fi tegee xaritu ministre bi la wala xaritu diw la gis nañ ko si ministère de la jeunesse fii si Kaolack benn chef de service boo xam ne peut-être dinaa si ñëw beneen yoon gën a yaatal xaritu ministre bi la moo tax ñu indi ko Kaolack mu ñëw vraiment ñun ñu gis ne répondreul critères yi nga xam ne chef de service moom la war a yor nekk Kaolack lu am solo la si wàllu jeunesse te ku ne ndaw ne emploi ku ne ndaw ne formation ku ne ndaw ne insertion loolu tey su président yi ñëwee tracé si lu am solo dañ koy félicité ne ko nag na bàyyi leen xel jeunesse bi loo leen dig dañuy xaar nga def ko kon sooy diggee diggee loo mën soo tëddee mën a nelaw. Euh, boo tëddee mën a nelaw ndaw yi nag nekku ne rek benn liggéey nañu bëgg wala rek nag li nga xamante ni moom nga leen di financé da nga koy dugal daal di cay songu ku ci nekk nag am na liggéey boo xamante ne bii euh, moom nga bëgg te itam nag moom nga bëgg a wëyal tey nag ñi nga xamante ne bii ñoo féetee ci nguur gi bu ñuy fàtte benn yoon ñi nga xamante ne bii ñoo jàngut ndax léegi-léegi nag bu ñuy dimbale ndaw ñi euh, ci ab xëy nag dañuy daal di dimbale ñi nga xamante ne bii rek ñoo yore seeni ay këyit yore seen i ay lijaasa fàtte ñi nga xamante ne ni itam nag jànguñ te ñu war leen a defal ay formation ngir ñu mën a am si luñ jàpp euh, mën a suqaliku di wëyalu kàddu Cheikh Tidiane seen ci àddukaay Cheikh Tidiane Diagne waaw li nga wax dafa am solo parce que jeunes yi nga xam ne jàng nañ am ay diplôme di xaar ñu insérer leen parce que demande bi day varier am na ñoo xam ne insertion lañ bëgg am na ñoo xam ne emploi lañ bëgg am na ñoo xam ne auto emploi lañ bëgg dañuy xaar ñoom def nañ seen formation jàng nañ nga financer leen nga jàppale leen ñu ut seen yëfu bopp donc lu ñuy xaar mooy vraiment mu développer ay stratégie teg politique jeunesse bu responsable pour mën a jàppale couche yëpp bu mu jël politique rek farale boole ko si ñu jàng bàyyi ñu jàngul ñu jàngul aussi am na si ñoo xam ne def nañ ay formation lu may gën a ñaax sax mooy ñu gën a favoriser la formation professionnelle jeunes yi mën a def formation am liggéey parce que jàng ba dajale say diplôme te mënoo dara aussi loolu amul sens mais xale bi bu muy jàng nga fexe mu spécialisé wu si lenn ëllëg kooku su demee ba mën métier mokkal métier nga jox ko liggéey nga ñàkk ko jox liggéey peut-être am na métier ba pare soo ko jàppalee lu ndaw rek dina mën a continuer dem mën na gën a ñaaw bu buñ jël affaire yi focaliser wu ko si ñu jàngu rek soo xoolee Sénégal aussi am na ñoo xam ne seen jàng soriwul am na ñu jàngul ñooñu ñëpp dañoo war a développer des politiques yoo xam ne dina jéem a ku nekk li nga xam ne moo ko mën a sagal si réewam parce que jeune moom soo tollee liggéey rek ngay xaar am li nga xam ne dañ koy dimbalee sa askan dañ koy dimbalee say waajur dañ koy dimbalee sa réew beneen bi mooy aussi à chaque fois dama koy faral di wax l'emploi n'est pas garanti par l'état état waxul kenn jàngal soo amee say diplôme ma jox la liggéey état waxul kenn demal defi formation soo paree ma jox la liggéey mais day créer les conditions yi nga xam ne nit ki dina mën a liggéey moo tax nga dégg financement yi moo tax nga dégg bourse yi ñu offrir jeunes yi pour ñu mën a def des formation yi tout ça donc man dama gis ne problème mu Sénégal ndaw ñi lu si am solo lañ soo réglé problème mu ndaw ñi rek mën nga régle lu bëri si problème mu Sénégal. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. mooy leeru jamono ñu dem ca beneen xibaar Mamadou Mbàcc nekk responsable APR bokk ci cadre yu Benno Bokk Yaakaar mu ngi xamle ne Bassirou Diomaye fay jël na ndam li ci premier tour jarul sax ñaari xel jarul ji tamit di sikki sàkk amuloo benn werante te it tamit na xamle na ne askan wi daal bu ñu la joxatul bopp rek joxatuñ la bopp te bu ñu demee ba woolootuñ la gisatuñ lenn lu leen doy ci yow daal du ñu la wooteelati te loolu moo dal nag pouvoir bi ci askan wi askan wi dañ leen a wóolootut loolu moo waral naka ñu jël seen i ay carte daal di koy jébbal euh, ki nga xamante ne bii moo di Bassirou Diomaye Faye mi ñu daal di wóolu ñu teewlu kàddoom yi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. situation bu xaw a compliqué la parce que c'est vrai que dafa jaxase lu bari. y a une situation endémique de chômage des jeunes xale yi nekk nañ ci situation yu tar ça c'est un premier facteur deuxième facteur bi je crois très sérieusement mais ça population yi tamit ñoom ñooy doxee noonu sentiment d'impunité ci ñi nga xam ne ñi ni ci suñ camp suñ defee loo xam ne li nii ñoom dañ koy gis comme luubal ñooñu dañ leen di bàyyi ñuy daagu ñuy dox lu leen neex dara du leen ci fekk y a un élément mooy li nga xam ne lii nii moo nekkoon histoire Sonko ak péripétie yi mu jaar yëpp parce que au bout d'un moment population yi dañ ne rek ba ras bool ñoom lu leen neex ñu def dara du leen ci fekk fii keneen ku leen du mooyu lu mu def ñu tiiñal ko sonal ko boolee yooyu yëpp day daal di nekk benn euh, cocktail explosif boo xam ne bii nii quoi ça se retourne contre le pouvoir last but not least mooy li mujj ci affaire yi mooy bëri na ci responsable yoo xam ne taxawaay bi ñu war a am ci wetu population yi jege gi war a am ci wetu population yi di leen déglu di ñëw di teewee seeni mbir di uyu téléphone di répondre ci téléphone teg seen nopp xam ne askan wee leen fi teg loolu tamit bokk na ci li nga xam ne li nii lu mel merlot yenn responsable yenn militant ak ñeneen ak ñeneen tout ça quand même quoi fait que on boo xam ne bii nii ça ne pouvait pas jouer en faveur euh, waxtaan ak askan wi tàllal leen micro ñu wax ci élection présidentielle yi euh, fii ci diwaan bu Kaolack nag ananan nañ ko gisee ak sax yenn ci candidat yi seen doxalin seen taxawaay ndax ñenn ci ñoom waroon nañoo bokk ca élection yooyu lee am déet euh, gis-gisu askan wi ñu daal ci ciy teewlu ci micro Alioune Badara gars moom vraiment ça m'a parce que vraiment foogoon naa ne ni ma xoole woon ñaari camp seen meeting yeeg seen kii foogoon naa ne écart bi ni mu toll war na xaw seere tuuti mais waa ji dafa gagné largement loolu laa gis ko gagné tour moom yaakaar naa a am moom affaire moom leer na moom amul si lëndëm sax moom bon xam nga taxawaay benn boo ko yaakaar fii ak Kaolack ku nekk responsable ku jug ne responsable la ku jug ne responsable de wane sa mais bu ñu defoon ñu ànd ñoom ñëpp di def une coordination mu am ku jiitu ci góor ñi am ku jiitu ci jigéen am ci jiitu ci jeunesse féminine bi am ci jiitu ci jeunesse masculine bi dara du waaye ku nekk nga sa koñ maa mun maa mun mais il faut ku nekk comme ni ko doon def au de PS du comité ba à la coordination loolu laa xam waaye ku nekk si nekk sa wet man maay responsable maay nekk wax dëgg yàlla dëgg du fa mën a am ah, alkaari sëriñ bu moom xam naa ne li ñu doon wax comme si élection yi kii moom ñun moom xam te si liggéey la ñuy nekk saalum saalum moom boo koy lebal na nga ko lebal lu baax ndax fay ba moo tax dañoo ànd nag moom liggéey liggéey bu rafet muy amoon ay yaakaar si moom teg ko si yaakaar yooyu yaakaar naa ne néew ma jóg na jóg si waaye ba léegi tamit ñu ngi toog di xaar te xaar bi dafay bëgg a yàgg ndaxte def nañ affaire bi si jàmm ak salaam nañ jeex ak jàmm ak salaam rek terpelé rek li ma waxoon te bëgg bëri dem laay waxaat lu métti métti li mu yàgg yàgg mooy loolu nii la war a demee waaw Sénégal ñoo ko bokk kenn mënu koo xar ñaar ki gagné waxoon nañ ko bu gagné na kuñ gagné dem félicité ku gagné léegi nag ñëpp félicité nañ ko opposant yeeg candidat yeeg candidat yi fi newoon ak ñoo ñëpp félicité nañ ko félicité nañ jomaay léegi nag pouvoir bi ñoo fi des ñoo war a ñëw félicité ko mais ñu dañoo nekkoon ko ci guuta génn nañ ci guuta ci pax lañ nekkoon génn nañ ci pax bi ah, sëriñ bu ñàkk saaf askanu Kaolack moo ko jural ñàkkum ndamam fii ci diwaan bu Kaolack parrainage yi sax ñi ñaa ngi ñaari xel ba xam ndax amoon na ca ndamam déet ndax daal lu ko waral mooy moom bërëb sax bi mu sànnee carte dañ ko fa dóor dóor yu metti du samay kàddu vie Babacar sàmbu moo ko xamle ci micro Alioune Badara Diop xam nga sëriñ bu xëy na lajj na mais bu seetloo ci dans wàllu mbir environnemental a ak Kaolack nu fi dundee bu njëkk ba wax dëgg yàlla am na yaakaar moom bu baax a baax ba local yi mu gagné ko facilement gis nga Alioune Wade bu ko continué woon di saafantu ak Kaolack waay di saafantu ak quartier yëpp di dem di waxtaan ak ñoom di dem na gagné naa toog naa amatuma kenn affaire mais bu defoon nu defoon ci local yi waxuma dina gagné de mais dina am une position confortable au niveau du Sine Saloum parce que parrainage lan mooy parrainage yow nga ne am nga 40 000 parrainage te reflété wul ci sa parce que normalement ku la prédé ma gis résultat bi damaa tiit ma ne yaa ñu wax ne Kaolack am nga fi de la parrainé da laa war a wooteel waaye na am ki nga lu mu jëlee woon local ah wax dëgg yàlla jàmbaar la de jàmbaar waaye nag vraiment résultat bi reflété te résultat bu ne nekkoon bi ci local yi. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM point 1. Euh, kaddu gi di bàyyeekoo ci immeuble imaam Assane Cissé fii ci Medina Baye ñu dugg nag ci weeru koor ak ay ngëneelam ndogu yu ñuy joxe euh, ci mbedd mi di ko yóbbu ci prison yeeg hôpital yi askan wi nag mu amal leen solo lool euh, Baye Fall yi di takku di màjjal nag yore seen i ay leket luñ ca daal di jëlee xam bu mat teg seen cin def ci café waaye itam di ko jébbal askan wi mu doon nag mbir moo xam ne mbir mu rafet la ñu koy faral nag di ko gis ci biir dëkk bi di ko gis itam nag ci askan wi askan wi nag safoo ko rafetlu ko ko lool ana ban tiyaaba lañ cay daal di wuute sàkkuteef ba ñu ànd ci ak Alioune Badara Diop. tam loolu rek lañ ci jublu. maam Cheikh ci wet ga jàpp ni kenn du ci xaar kenn ndaxte bu dul weeri koor sax jàpp nañu ni des na ko bëgg a yaatal. initiative bi waaw initiative bu rafet la de kenn walu si xaar kenn tamit ñun moom xeebuñu dara waaw ku ñëw dig ñu si fekk ku ñëwul dig ñu si fekk di woon ak ñëpp muy Kaolack mu fu waay mënut a nekk boo ñëwee pour jàppale ñun pare nañ weeru koor lu mu langoo si ngëneel ñëpp xam nañ ko te ñun dañoo xam ne dañuy soxla social lu si mel ne ay hôpital prison yeeg yeneen ak yeneen parce que affaire du weeru koor kese ñun bëgg nañ di ko continuer parce que lii du lu ñu waxtaanee tey yàgg nañ ko waxtaanee mais ñu koy doog a taxawal Abou Camara lekket ca loxo ba di àddunaan lii léey ab mission la boo xamante ni daf leen a war ak askan bi lii ndaxte jàpp nañu waxtu wi ñu toll moom social askan bi soxla nañu ko lool rawatina ci jamonoy weeru koor gi non amul problème lépp dañ koy teg si loxol yàlla nga xam ne lii suñu borom sant la mission bu ñu war a dox la ñu defuñ ko tamit pour ut ci lenn dañ koy def te yàlla tax def ko ngir suñuy nawle ndax deux jours yi passé ñun ñu ngi doon dem campinal di gis dafa ne nekk faak ñoo xam ne suñuy nit leen woon suñuy nit yi démb barki Seydina Mohamed ñu leen di gis suñu yaram di daw ñu teg leen foofu kenn attewu leen loolu gën a yokk tax sax ñuy marché wu lii pour jàppale leen ñoom ñu mën a dox ak aide yi ñu bëgg a yóbbu foofu dem hôpital mu si nekk li ñu la mën a jàppale ñu jàppale mais xaaruñ kenn daal ñun ñun ñu ci lu ñu am danañ ko ci def ku ñu ñëw na fekk si ñu loo ñu dox ñu jël weeru koor ngëneel gi mu làmbool askan bi nag ñëpp takku rawatina ndaw ñi di séddale ay ndogu ci mbedd yi constat bile moom la ñu def ci dëkk Mbossé Kumba jigéen bile fii nag mën nañu wax ni foo jaar rek yoon la te nag doon na mbir moo xamante ni askan bi moom rafetlu nañu ko bu baax a baax ci jamonoy weeru koor bi nga xamante ni moom li mu làmbool ci ay ngëneel foo ko natt weesu na ko euh, ci koor gi sax nañuy desandi ak wér gi yaram ñu yore jabet nag ana nan nañuy war a sàmmee eh, seen wér gi yaram ci tàmbali ba ci jeexantalu koor gi eh, te duñu ci am benn jafe-jafe ñu teewlu ci digle yu docteur Malick Ngom eh, ci micro bi Biaye. ñi am jabet li leen di digal mooy surtout ñu bàyyi xel seen bopp seen suivi avant gi ak période koor gi yëpp ndax diabétique bi am na ñoo xam ne seen suukar moo ngi normal ñoo ngi topp seen rendez-vous seen dëpp ngi normal ñoo ngi jël ay traitement yoo xam ne mën na ànd ak woor ñooñu mën nañ woor sans problème continuer rek ba suñ dogoo digle yi nga xam ne moom lañ leen jox ci lekk bi ci ni ñu war a lekkee ndax dañ leen koy jàngal suñ ñëwee fii nii par exemple si centre diabète bi dañ leen koy jàngal ñu topp digle yooyu mais tamit am na ci ñoo xam ne dafa am garab yoo xam ne dañ koy jël te àndul ak woor parce que ki nga xam ne dafay jël euh, produit yi ñuy woowee insuline boobu àndul ak ndax euh, dafay laaj kooku su jëlee insuline bi dafa am heure yoo xam ne daf ko war a lekk souvent dafa war a ndékki añ ak reer kon ñooñu nga xam ne dañuy jël insuline moom duñ leen diggal woor parce que nag yeneen garab yoo xam ne nit ki daf koy jël mën na woor ñuy jël ay glucophage ay metformine yooyu mën na ànd ak woor mais suñ dogoo surtout nañu éviter jël lu bëri suukar mais suñ dogoo nañu fexe tamit naa ndox bu bëree bari jafewul parce que soo seetloo régime bi d'ailleurs sax régime ñun chaque fois dañ koy préciser ne régime diabétique amul régime mooy lekkin bu sell diabétique bi ni muy lekkee ki amul diabète noonu la war a lekkee loolu kese mooy régime régime bi ci misaal ci lu yomb daal pour ñu jàpp ko mooy lépp loo xam ne dafay jóge ci pepp wala loo xam ne dafay jóge ci ren à yi ci ëpp yëpp dafa bëri suukar muy ceeb muy mboq muy dugub muy yëpp dafa am suukar te pourtant saful suukar waaw ñam bi dafa am suukar pataat dafa am suukar. Euh, ca ñam yu am suukar yooyee sax nag moo tax euh, docteur Malick Ngom euh, di ñëw nag ci lim bi nga xamante ne bii ñu yore jabet war na ñam yi ñu war a di lekk ak tamit nag waxtu bañ ko war a lekkee ci ban anam nañ ko war a lekkee ngir mu mun a sàmmal leen seen wér gi yaram noa bi yaay moo ñu ko taataana. soo jëlee li mel ni ñebbe haricot petit pois lentille yooyu yëpp dafa am suukar kon lekk yooyu yëpp nit lekk lu yem la ci war a lekk yeneen kese la ndax soo seetloo ci koor gi li ëpp ci nit ñi li ñu doon añee moom la ñuy reeree kon diabétique bi wala ki nga xam ne amul jabet ni mu ci war a doxalee mooy suy lekk na jël ceeb bi mais boole kook légumes yu bëree bëri su ko defee rek dina suur parce que dañuy digle ne nit ki suy lekk ak lekk bu mu mën a doon soo jëlee par exemple ceeb bi kuddu ceeb bu nekk war na ko booleeg benn kuddu légume ak benn kuddu jën wala benn kuddu légume ak benn kuddu yàpp moo tax da ngay gis diabétique yu bëri di la wax ne dañ mën ne juróom-ñaari lekk déedéet juróom-ñaari kuddu ceeb lañ wax ndax seetloo nit ki su defee benn kuddu ceeb kuddu jën benn kuddu légume mu boole ko ba juróom-ñaari yoon dina def ñaar fukki kuddoog benn loolu ku ko lekk di nga suuf loolu kese mooy régime te cere nekk na lekk boo xam ne dafa am solo ci nit muy séeréer yi muy ñeneen ñi souvent yi nga xam ne dañ koo jàppee léegi lekk yoo xam ne maam yeey ko doon lekk lekk yooyu moom moo gën ci nit ndax cere laalo bi muy àndal bokk na ci li nga xam ne dinay wàññi suuka si dugg ci deret bi moo tax bokk na ci lekk yi nga xam ne am na solo nit ki nga xam ne jël na cere ak mbuum tey lekk lu bari ci mbuum bi boole ko cere muy diabétique bi muy keneen kooku régime moom amul lu ko sax nañuy desandi feebaru doyo di ragnon muy feebar boo xamante ne bi jafe-jafe la mu doon nag feebar bu métti waaye tam nag faj bu métti te seer koppar yi nga xamante ne moom nañuy fajee feebar boobulee doon koppar gu baree bari ñi nga xam ne sax ñoo koy yore dañuy faral nag di jëfandikoo li nga xamante ne moo di dialyse ñii di ko def nag ci weer bu nekk ñii sax di egg ba di ko def nag semaine bu nekk nguur gi nag ak jëwriñ ji nga xam ne moo yore wàllu wér gi yaram gi di dépenser lu toll ci juróomi milliards ci at bu nekk ci daal junne ci doomu aadama yi nga xam ne ñooy woyaale jàngoro joojule te ñu bëri nag dañ koy wéyaale te duñ ko xam euh, ngir daal ñu mën a mucc ci jàngoro joojule faw ñuy dem di def daal di gëstu seenu yaram ngir daal mën a daw li nga xamante ne bii moo di jàngoro ju professeur Abdou Niang indi na ci ay leeral Arona Niang moo ñu ko taataanal. très très important alors loolu mooy nit ñi nan lañu mën a def ba moytu doy di roño loolu am na maanaam trop. parce que gis nga faj bi ma la expliqué ni mu doy waar ni mu chéré séance de dialyse bu nekk boo ko defee ci centre privé il faut nga fay fukki junni ak ñett soixante cinq mille francs nga war koo def ñetti yoon par semaine te jënd jëndagoo garab de garab yi ngay naan comprimé yi donc muy au minimum deux cent mille francs par semaine boo yeggee ci weer mu nekk daanaka un million jëm un million deux cent kooku boo ko defee at mu lekk lu gën gaa néew dix million loolu la état di dépensé ci mille malades yooyu nga dégg ni ñu ngi koy jalis fii ma lay wax ak yow at mu jot en tout cas ba ren ji junni nit yooyu dinañ consommer juróomi milliards ci budget wu ministère de la santé bu Sénégal xam nga bon loolu faj bu cher a cher la léegi nag te nee naa la ñun daanaka fukk yu ko soxla ñun ñaar la ñuy faj fi mu maanaam juróom-ñett yëpp duñ ci jote donc xam nga ñun bu ñu bëggee faj ñëpp danañ dépenser alal ju bari waaw loolu nag buñ ko bëggee éviter dañuy dem ci li ñuy wax fagaru moo gën faju mooy la prévention prévention nag dafa am ñaari pàcc mooy ñi nga xam si dara dalagu leen mooy la grande majorité de la population ak ñi nga xam si dafa am feebar yoo xam si da leen di exposé pour ñu am doye di roño d'abord ñi nga xam si dara dalagu leen wala ma commencé ñi nga xam si dañoo am ay feebar comme diabète am tension wala doye di roño mais wala feebar roño mais yeggaguñu doye di roño gis nga ñooñu d'abord li ñu njëkk a wax mooy dépistage bi par exemple kii di diabétique kii di hypertendu waruñu toog ak xamuñu ay roñoom nu muy liggéeyee te loolu ay analyse koy def. bu ñu ko dépister ba gis ni roño yi mi ngi commencé di indi jafe-jafe. ñu yóbbu leen ci spécialiste yi ñu fexe ba ñu faj leen ba seeni roño du yàqu xam nga kooku danañu indil économie parce que nga xam si <laughs> dafa waroon def jalis nga faj ko ba deful jalis kooku moom macha allah. léegi nag ñeneen ñi nga xam si dara dalu leen mooy yow diw ma sàmba Masamba Mademba yéen da ngeen xalaat ni seeni roño normal na mais yow mii toog xaw ma ndax. tey jii fii nga toll mën nga ni yow ndax say roñoo ngi liggéey normalement am déet est-ce que loolu mën nga ko wax. Euh, est-ce que loolu mën nga ko wax loolu moo waral nag gëstu sa wér gi yaram mooy sàmm sa dund euh, bés bi nga xam ne nag dañ koy faral di ko jagleel ngir daal taxaw waxtaan ci mbirum nag feebaru doya di raño bile dañ koy def nag ngir ñaax askan wi ngir ñuy mën a xam ana nan la ñuy def ba daw feebar bile ana nan la ñuy def ba mun cee muslu ndax doon na feebar boo xam ne feebar bu doy waar la waaye itam nag ñaax suñu mbokku jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci waañ yi ñu moytu nag saf safal yi nga xam ne dañ koy faral euh, di ko jëfandikoo ndax yenn yu bëri ci saf-safal yooyu le dafa ànd ak mbir yoo xamante ne day faral euh, di indi jàngoro jooju nga xam ne mooy doye di rañoo ki nga xam ne moo di euh, professeur Abdou Niang moom nañ ciy teewlu ba léegi ci micro Arona Niang li tax mënoo koo wax mooy xooloo ko donc pour ñun yaakaar nañ ni benn doomu aadama warul la toog at ñaari at deful analyse yu ko wax yaramam nu mel xool suukaram xool ay et cetera mais loolu léegi foo dem ci biir Sénégal am na fi laboratoire yaa ngi fi mais li ñu amagul mooy mooy habitude pour nit ñi di def lool loolu nag dañoo war a yee askan bi parce que fii sénégalais bu gisee kuy dem hôpital sax la mu koy wax mooy lu lay metti ak lu la dal donc ñun mooy maanaam suñu subconscient yeggaguñ ci xam ni di faju feebar moo weesu léegi feebar dañ koy dépister danga koy gàttandu bu ko defee du la dal parce que am na ci yoo xam si buñ ko teelee gis mën nañoo fexe ba feebar bi du la dal donc kooku mooy la prévention primaire te nag foofu li ci gën a am maanaam askan wi di waxtaan ak ñoom mooy lii ngeen def à l'occasion la journée mondiale du bu ko defee nit ñi bàyyi ci loolu seen xel et ñu war ko di ko waxtaane ci jumaa yi di ko waxtaane ci jotaay yi bu ko defee nit ñi yeewu ci léegi nag mu am ay comportement nekkin yoo xam si nit ñi bu ñu ko defee ñu gis ni ñooñu xeetu feebar yooyu yàlla mën nañ leen ci musal ñu ni yooyu yan la li ci gën a am maanaam mooy lekkin bi hygiène alimentaire parce que dañu gis ni liy ëpp liy joxee feebaru tension ak feebaru roño mooy lekk xorom bu bari te ñu gis ni sunu réew yi bi ñu calculer seen lekk xorom daanaka dañ ni nekk par jour dana lekk lu mat fanweeri gramme 30 grammes de sel par jour parce que jigéen ñi li ñuy xorom bari na ba pare dañuy safalaat teg ca jigéen ju fi toggul kib jimbo defe na ni bu ci ceebam nekkul defe na ni neexut te mi ngi gaañ njabootam ñu ni bon nag bu boobaa il faut que ñu waxtaan ak jeeg-jeeg ñiy togg yépp ba ñu wàññi li ñuy def ci xorom ji organisation mondial de la santé dañuy nit pour mu wér dëgg warul weesu 6 grammes de sel par jour ñun ñoo ngi ci 30 grammes donc xam nga kooku bon euh, tension dana fi yàgg rey dooño dana fi yàgg rey loolu la ñu wax ci suukar si suukar si tamit dañ ko war a wàññi lu bari xabaar yi bitim réew Euh, mu ngoog yëglu na boppam xibaaru biti réew soxna Ngoné Ndiaye ñu ngi lay dalal. Euh, Mariama euh, gannaaw ba ma la nuyoo ba noppi jukki xabaaru biti réew yi nag ni ki tey jiile daañu dem ca RDC Turquie Cameroun nag ca Togo. xabaar yi bitim leen ci xibaar yu wér ne bés ni ki tey jii nag réewam Togo am na la ñu tuddee constitution bu yees gannaaw ba nga xamee ne juróom-ñett fukk nag ak juróom-ñeenti député ya ca majorité ba daal nañu koy. wote euh, ci altine gile euh, weesu euh, mbir moomee nag nar a indi ay coppite ci la ñu tuddee régime présidentiel def ko régime parlementaire maanaam daal pencum ndaw réew ma jamono ji am nañu sañ-sañ mën a fal njiitum réew muy tabbee goo xamee ne des koy def sans débat maanaam daal des nañu ko amal ci lu amul a benn laam-laamee mu nar a yóbbu nag mandat wu njiitu réew ma ci lu tolloog juróom-benni at uteeg la fa newoon ndaxte nag ci réew moomee bu leen fàtte ne juróomi at képp nag nag ci la ñu tuddee euh, suffrage direct euh, ca la ñu doon tabb nag am njiitum réew waaye jamono ji mu mel ni ki euh, mbir moomee nar nay indi ak ak salfaañoo te sax nag ba jamono ji xamaguñu ana dogal boobee kañ rek lañu koy mën a tàmbali. xabaar yi bitim réew. ñu biti réew yi te dem ca république démocratique du Congo foofee nag ay jàppante yu tàng jër itam daal dina fay amati ca dig ba nekkee ca dëkk bi di sàkke fare ca penku réew ma mbir ma nak jamono ji daal di soob réew ma ci guuta goo xamee ni mësuñu koy xam Mariama bu ñu sukkandikoo nag ci mbootaayu xeet yi di ONU ñoom nag ña ngay xam leen ne lu tolloo ko ñaari million ci ay doomi aadama waxtu wi daw nañu laqu ji ca province bu Nord Kivu. xabaar yi moom ak leneen ci ay xibaar gannaaw nag ab l'opération yeeru goo xamee ne kilifa ya ña nga ko fa doon amal ci ay diiwaan yu fasantikoo euh, mënees nay wax ne nag mbir ma guddi yi euh, jur na ay njuxteef euh, ndax nag jot nañu tegu loxo lu tolloo ko téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ay doomi aadama yoo xamee ne dañoo njoxtu ne dañoo daal di aju nag ci groupe état islamique bile di el waaye itam leneen lu aju ci xibaar boobee te ñu xamal ñu ko mooy ne benn fan ci ak juin atum 2023 ak bés ni ki tey jile lu tolloog ñaari eh, junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti ci ay doomi aadama eh, jàpp nañu leen ci xeex boobe ñuy xeex wàllum terrorisme eh, gannaaw ba nga xamee ne kilifa ya dañoo jàpp ne ñoom ñooñee dañoo taqee mbaa ñu laale ca googe mbir. xabaar yi. bitim réew euh, ñu jeexale xibaaru biti réew yi ca Cameroun ak euh, lu soxal euh, Martinez Zogo ma nga xamee ni ñu ngi ko boomoon moom nag procès ba ibbi woon nañu ko altine bi le weesu waaye nag lañ ca mën a jàppee weesuwul ne kon dañu ko mujj a dàqandi ba fukki fan ak juróom ci weer ak avril gii ñu dëgmal kilifa ya nag lañ ca jublu weesuwul kon gën a lañ ba mbir yi ca boom googee ñu boomoon boobule waay taskatu xibaar xabaar euh, gënoon a fës ci xabaaru biti réew yi euh, jàngeen jëfati. xabaaru tàggat Euh, bàkkam ba jib na xibaaru tàggat yaram ñu ànd ci ak Serigne Moussa Kane te nuyu bokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak euh, football jëm ci fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñett Ligue 1 bi door tey bu ñeenti waxtu jotee ba tekk fanweeri simili ca Stade Lat Dior ba ca Thiès jàmbaar moo fa dalal AS Pikine bu dee nag bu soxal Ligue 2 bi Kër Madior mooy laaleeg RS Yoff ca Caroline Faye Oslo FA di laaleeg HLM CNEPS Excellence di laaleeg Amitié FC amoon na démb làmb Guinée Bissau dafa daan Soudan ñaari bal ci benn Malawi dafa ñàkk ci kanamu Zambie benn bal ci ñaar Sénégal daan benn benn bal ci dara Zimbabwe ñàkk ci kanamu Kenya ñetti bal ci benn Ghana ak Uganda dañoo tëw ku nekk ñaari bal nga dugal sa morom Uruguay dafa ñàkk ci kanamu Côte d'Ivoire ñaari bal ci benn diggante Angleterre ak Belgique ñaar ak ñaar la ñu def ñu waxtaanee basketball ak tournoi de l'amitié ba am jamono ji ca Bamako Sénégal dafa ñàkk ci kanamu Mali 66 55 football ci jigéen ñi équipe nationale nag xam ngeen ni qualifié na ci Coupe d'Afrique bi ñu leen jagleel waaye bu baax léegi amaguñu si li nga xam te moom mooy jogante xaritoo ci trêve internationale bi fu mu toll nii nag Sénégal mi ngi xaarandi li nga xamante ni moom mooy jongante xaritoo ngir wàccaayu Coupe d'Afrique des Nations jëm ci jigéen ñi. ñu dem ca denduk Europe ak final barrage qualification euro yi nag démb Ukraine dafa daan Islande ñaari bal ci benn daal di qualifié moom it dafa tëw ak Grèce ba ñu demee ca teg yi mu am ñeent bal ci. ñaar ñaar équipe yooyu jot seen ticket de qualification ngir euro gi ñu dëkkmal ca Italie Salernitana club Boulaye Dia bi nag moom sax Boulaye Dia dina delluwaat ci club bi daal di commencé waat li nga xam te ni mooy entraînement ginnaaw bi nga xam te ni club ko suspendre woon ci ab décision boo xamante ni moom Boulaye Dia jëloon na ko ci bañ a bokk ci seen jongante ak Udinese loolu jëm ci calcio italien la ginnaaw bi waxtaani jubee nag ci joueur bi ak administrateur équipe bi nag dafa mel ni nag fu mu toll nii déggoo am na ba Boulaye Dia dina mën a li nga xam ni moom mooy terrain d'entraînement yi foofu ci clubam bii di Salernitana mbokk yi waxtu wi jot na ñu sóob ak yéen ci seen rubrique corps ak tàggat yaram. seen rubrique tàggat yaram ak corps. waaw parce que xam nga euh, jigéen wérul moom. Mm-hmm. Euh, cas particulier la parce que déjà moom dafay soxla apport énergétique. Mm-hmm. pour boppam soxla ko également pour ki nga xamante ni moom la ëmb. donc lu ci gën a bëri su dee grossesse bi dafa xaw a avancé tuuti. Mm-hmm. dañ leen di conseiller ñu surseoir ci jeûne bi. ba yàlla may leen ñu wasin ak jàmm. ñu rattrapé wu parce que au delà ñoom ci seen bopp te dafa am tamit comme li ñuy wax xale bi nga xamante ni moom la ñu aussi dafay soxla. apport énergétique te xëy na suñ toogee journée bi yëpp lekkuñu mm-hmm. apport yooyu mën na manqué moo tax pour jigéenu wérul yi moom ay cas particulier la am na ci tamit ñeneen ñoo xamante ni au delà de seen grossesse mm-hmm. mën nañu sooxaale ay yeneen feebar mel ne ay anémie wala koo xamante ni surtout ci début de grossesse day wàccu mm-hmm. yooyu yëpp day tax le plus souvent ñoom duñu nekk en état de pouvoir gêner est-ce que jigéen bu wérul mën na woor ba pare def yoo xamante ni peut-être mën na koo jural ay lor. Mhm. plus que lu mu koy indil ci ay bienfait. lii moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi caa ngeen jëf. li ci yéene yi. yéenekaay yi L'Obs, li ci yéenekaay yi ñu ànd ci ak Seydina Omar Cissé ah, lan bi kum ñu jàpp la tëj la kaso nga génn kaso dem pale ndax fañ laa fal président bu Sénégal li ni mel moo dal Basiru Jomaay Fay nga xam ne ndogalu yàlla jàmmunu ci dara li ni mel kenn yaakaarut ko woon waaye yàlla moom noppi na yoor yoor yéen a kaay ne ay mbir yu yéeme sax fa cee xam ndax Basiru Jomaay Fay bés biñ ko jàpp tëj ko kaso fukki fan ak ñeent la woon ci weeru avril 2023 waaye bés biñ ko bàyyi tamit mu génn kaso fukki fan la waat ak ñeent ci weeru mars 2024 te biñ koy jàpp ci weeru koor la biñ koy bàyyi tamit ci weeru koor la yéen a kaay bi ne Jomaay Kay ak Ousmane Sonko fa ñoo bokk niroo ay jaar-jaar le rafet yéen a kaay ne fal gi ñu fal Basiru Jomaay Fay amagum na jéego bu baax boo xam ne def na ko ci wàllu yokkute ci nattuwaayu mbiru koom-koomu Sénégal li ñuy wax prix côté fa yokk fi mu toll nii libération ne 4 avril bii di ñëw soldaar yi fa ñuy organiser xew boo xam ne moom la ñuy prise d'arme maanaam njiiti réew mi Bassirou Diomaye Faye fay ñëw ñu rëkkal ko junj ya loolu mooy nekk génnam bu njëkk officiel ginnaaw buñ ko falee président ndax loolu fay fekk njiiti mi fi nekk Macky Sall jébbal ko leng yi le 2 avril le public a kaay ne gor ca wax ja Bassirou Diomaye Faye la mu waxoon def na ko mooy tekki na ndomba tànkam démissionné na ci parti boobu di Pastef ndomba tànkam ba moom la delloo waaye fay des di nekk membre simple ndax ñoom seen parti ba Pastef a kaay bi na ci fàttali njiiti def nag moom Ousmane Sonko mooy effacé wu bàyyi jomaay doxal Issa Sall xam-xama màcc ci wàllu politique moo ko wax ca source a fa caa yokk na fa bëri ay jafe-jafe yoo xam ne sénégalais yi ñi ngi xaar Pastef ngir ñu war koo régler te fileeg ñetti weer ak lu topp sénégalais yi duñu leen may dara de fa ñu xaar li ñu leen digoon ñu def ko tabb gouvernement bu bees bi nag léegi tey ñu amal ko jomaay fa koy gaawal l'observateur ne man kay faay ragal doxalinu réew meeg dogal yeeg yorin beeg yooyu ak kujje am ci diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Jomaay Fay dëgg la Jomaay Fay bu nekkee président yàlla ak Ousmane Sonko waaye ndax si doxalinu réew mi du am fénqaloo sa seen diggante ñoom beneen bi ci topp xëyu ndaw ñi ak dundu gu cher gi lu naqare li la te askan waa ngi leen ciy xaar su di quotidien na ko faala ci yokkal wàllug mbay mi faxe tamit ba sénégalais li ñuy dundee ñu bàyyee ko ci réew mi bañ a jéggaani ji loolu défi la bokk na fañ ko war a lijjanti mi ngi leen di xaar njiitiram Macky Sall waxoon na ne dana ko lijjanti ma nga la di dem lijjanti wut ko Ablaye Wade waxi nopp léegi ndax ñii danañ ko lijjanteem déet laa si ne kaay na lii lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne njureefu élection yi résultat yi ñaari million doomu aadama ak lu toftal ñoo wateel jomaay fay buñ koy xayma 54 virgule 15 pour cent la lim rawee gaañ ñi nag xoto mënu daw jege na 700 000 voix Anta moo jël 14 ba te mooy moo ñu ko xamal Walf Fadjri yéen a ne gouvernement bu bees bi nag sénégalais ñu koy xaar de diggante Jomaay ak Sonko ñoom fan la tàmbalee ak ñi xam ne ñoo nar a nekk ay ministre yéen bi ma koy wax la mu wax nag moom Makhtar Cissé jëwriñ ju dénk wàllu biir réew mi mooy organiser na élection yoo xam ne lépp jaar yoon ndamal Ba APR gars yi ñu ngay tuumal njiit réew Macky Sall de nee na lu ji njàgg mooy njàgg yaw seetal Omar Sow fa wax ne Amadou Ba njiit réew Macky Sall jàppalewu ko ay farandoro ci boppam fañ ko doon xeex waaye acte yi ne kaay ne faa di wax lan moo tax Amadou Ba ñu mbuqi ko mu ñàkk wote bokk na ci njiit réew Macky Sall fa waajalutoon koo xam ne fa koo nar a remplacer daal troisième mandat bi tamit fa yéex a wax ne du ma ko def gars bi ci fal gi ñu ko fal Abdoulaye Bathily fa wax jomaay na ko liggéey bi lay xaar bëri na waaye nag faa bëgg sénégalais yi ñu bañ a yàkkamti duut fay ñëw rek saafara jafe-jafe yi de déedéet ndànk-ndànk la églis bi jàngu bi ñoom fa ñoo wootee ñëpp ànd nekk benn ngir ñu liggéey réew mi ña ngi ko waxee ca GP yéen kaay Alioune Tine ne fa tëj ab xët boo xam ne ci histoire am na ko ginnaaw beneen xët bu bees la ubbi l'évidence yéen kaay na njiitiram Macky Sall li ko dal nii moo ko teg boppam ñàkk na nguur gi ay jege ñaalaam ñàkk nañ ko te dara waralu ko lu may ay calcul pexe yoo xam ne fa ko pexe Amadou fi mu toll nii moom rek mooy avenir opposition élection bi ëllëg Khalifa Sall moom politiquement moom dee na jeex na c'est fini intaa mook Idrissa Seck su yeboo ñu bàyyi politique dóor yi leen dóor fa ñaaw jomaay fa leen doon mbuqi di ëlbati ba seen biir bureau de vote ya tut mu ray leen libération moom fa ñoo xamal ne mbootaay réewu Europe yi fa ñoo rafetlu organisation bu baax bu rafet bu ñu amal ci élection yi naka noonu CEDEAO seen ndaw yi ñoom fa ñoo rafetlu wote yi fa jaar yoon le public yéen a ne njiitiram libération moom fa ñoo xamal mbir mu yéeme a yaaw seetal ñeenti téeméeri million moom leen sàcc ci ab compte Wave koppare nag fañ koo détourné daal di koy denc tasaare ko ci fukki compte ak ñeent ci benn banque am na fukki nit ak benn ñoo xam ne fa ñoo njort na ñoo ko def bokk na ca nag chefu agence bu banque ba ñuy wax Ora banque ca jam ñaajo am na sax ay njiitu entreprise yoo xam ne teg nañ leen ci loxo waa dig ñoo fa jaar fan la Adji Sarr jaar ba daw génn réew mi lii de mooy laaj bi l'observateur ne fa xam xibaar yu ñu joxe na Adji mu nga Suisse daw na def li ñuy wax exil na ana lan moo tax mu daw ndax ku nekk xam na ne atteem bi diggante mook Ousmane Sonko jeexa gudde contumace lañ atte woon Sonko léegi fañ leen a war a attewaat sénégalais yi nag fañu war a xam ana mooy dëgg gi ci ñan ñoo ko santoon mu tuumaal Sonko ci lu amut waaye viol ba mu waxoon ne moom la ko def ak menace de ba loolu moom attekat yi setal nañ Ousmane Sonko ne neen ko du dëgg <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ñi mooy ne première dame bu bees bu Sénégal Marie la tudd mooy aawo président Diomaye Faye portrait nag laas yéene moo ñu ko wax waa léegi ñaareelam ba nag Absa moom nuñ koy tuddee deuxième pale ba wala ñoom ñaar ñëpp ca pale ba la ñuy dëkk man daal loolu fa xub bopp bi faa ko bëgg a xam waaye yàggatu dara léegi te ñu xam nu yëfee demee mbokk yi lii ñoo fi ruusee woon ci ay xibaar Alfayda FM 90 point 1 di juróom-ñeent fukk yu toftal benn leeru jamono ma fegoo woon ci ak koddu sekk keneme eh, ci machine bi ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi doon lu xibaar yi eh, kaddu gi doon bàyyeekoo ci studio Alioune Momar Lo eh, ci biir immeuble Imam Assane fii ci Medina Baye ñuy ñaan mi borom jàmm mu may jàmm am jàmm la may jàmm fu ñu toog di dégg jàmm di gis jàmm mbokki cant ak ngërëm ñeen na leen di leen jox dig daje ngi wéy di wéy di ànd ak programme mu Alfayda jërë ngeen xibaar yi ak Mariama Ba.